ñu ñëw xool nan la ñuy dimbalee ndaw ñi pour liggéey mais Sonko ak ba ñu toogee ba léegi lan la ñu toogagum rek ne tey ñu ngi dem pour teg pause xeer pour fii am na lu ñu fi war a def ëllëg pause xeer waxuma lu ñu inauguré de lu ñu inauguré moom ba seen mandat di jeex du ñu inauguré dara parce que fekk na mu sàll ngaari lam tooro inauguré na lépp lépp la inauguré inauguré na école yi. inaugurer poste gendarmerie inaugurer sapeur pompier inaugurer inauguré euh, université inaugurer bibliothèque inaugurer hôpitaux yi télé yi inauguré bay inauguré port bateau. Bateau le bato la joolaa daanoo fii Ben lañ amoon bu bon mu ñëw jënd ñaar Air Sénégal amuñoo sax ben avion bu baax ñu jënd ay avion yu bari bay am sax air Nar air Saint-Louis boo au Sénégal Dakar nga dem par avion kooku fi andi BRT vous ngeen di gis kan ngeen di Afrique ñu la BRT fi kan fa am kan mu ngi ko BRT yu climatiseur caméra lepp di créer ay emploi ñaata nit ñoo doon liggéey ci BRT bi di télé bi di garder di di kat ñun état di après seen ñii toog tey lan la ñu defagum lan lan lan luy mën a recruter nit wax ju bëri kon duñ fi fekk nag ñu mel nii di jël ay jeunes réew mi di leen jox emploi ñu ne dañuy toroxal ñii Sénégal yépp waral lànk ba tëdd si suuf si ñoo bañ yéen joxu leen nit ñi emploi kii lu mu dee dee jox na nit ñi emploi boo xoolee lu mu am si ay emploi ëpp na cinq cent boo compter rajo bi télé bi soleil bi ak lii nga xam ne mooy ay panneau publicitaire yi muy defar kon kii dañ ko waroon a taqal ordre ordre du mérite parce que il mérite parce que kuy jàppale sénégalais rek mérité nga nañu wax dëgg kuy jàppale sénégalais parce que ñun loolu la ñu bëgg. sénégalais bu am doole jàppale beneen moroomu sénégalais am Sénégal daal di jëm kanam moom bu ko neexoon tey Bougane Gueye Dany bii du ubbi télé du ubbi rajo ay étages lay tabax ak ay immeuble ku bëgg dëkk fay du jël kenn du jël kenn du jël kenn tey tabax cité cité Bougane Gueye Dany ku sa bàyyi bëgg dëkk si cité bi nga joxe avance weer bu dee boo faj mu génne la du jël kenn ku bëgg gardien yéen ñi dëkk foofu yéen a jël gardien wala mu ubbi ay hôtel ubbi ay auberge defu ko ubbi télé ubbi rajo di fay impôt xaalis bi di ñëwaat ci état ñu mel nii ku leen dooleelul nag wax dëgg fa yàlla nag waroo naan danga leen di xeex politiciens yi tamit bu ñu toog sunu sunu sunu sunu kaw bopp yi ñu mel ni Europe état bi da leen di ñëw woo leen ne gis nañu yaa ngi jàppale sa askan jamono ji métti na abal nañ la milliards investir parce que yow nek visionnaire parce que bi nga des alal mënu auberge wala ay boîte de nuit mais yow da nga am alal presse pour nit ñi di xam xibaar yi xew seen réew ku sa mbokk de nga dem nga ji ku ne des ce que tu fais là c'est intéressant am ñu des mais kooku ngay convoquer diko parce que bokku tok yow gis-gis saga wut jëlul paaka jam jëlul pistolet dóor kenn man te dëgg bugaan nag ànduma ak moom si benn côté wax dëgg fa yàlla ma xam-xam ne sax yàgg naa ko dóori xeer parce que tey nguur Macky Sall kii bu daanoo loo ma ngi si biir moo tax tamit souvent dañuy naan qui sème le vent récolte la tempête tey jii benn président Macky Sall nu mu gënee ñoom Sonko ki jomaa yi du sax ndànk mais bugaan gisutoon loolu fu ne la xeex président Macky Sall Macky Sall dictateur la Macky Sall tëbbu tànk foo dem ma teg sama tànk mu ngi noonu xoolal tey jii ñi nga àndaloon naan tëgg tànk ñoo la wor ñoo lay métital pourtant président Macky Sall mosu la métital mosu la métital da ngeen doon am problème sax à la mu ne baal naa leen seen i bor ndax xol bu rafet ñii ñu ngi toog tey ne bu ngeen fayul seen impôt seen i seen i compte bancaire ñu tëj ko ku tëj seen compte bancaire fan yëre du état buy Sonko ak Jomaay a ngi doog a mois di tëj ay compte bancaire u jàmbur du ngeen xaaragum sax ba un an ngeen doog a tëj ay compte jàmbur toog rek commencé tëj ay compte jàmbur toog rek ne kër yi nekk almadi travaux yi na taxaw dañuy arrêté loolu loolu loolu loolu du état état doo yor xol bu bon te loolu si xol bu bon la bopp nit ñëw jël këram tabax ko bu mu mënti doon état as même bu dee nu mu ko tabaxee du yoon xoolal noo waxtaaneek moom fu mu wutijee alal fu mu garantie këram mu remboursé mais bu leen toog naan way dañuy daanal kër yi dañuy nangu kër yi te yéen daanalu leen seen kër nangu leen seen kër fu geen jëlee seen alal ba ñu commencé toog yenn nit yi xam ne amuñu palto amul place way kii moom maa moom fii Madiambal Diagne moom moom kër gi kër gi Marème Faye Sall la ko moom fee Aby Ndour ko moom fee Youssou Ndour ko moom di jàngal nit ñi ay fen naan fu ngeen gis koo xam ne kër gi waru ko moom rek jël leen kër gi ngeen filme ñoom ñëpp ñu xëy téye seeni téléphone gars yi fii kër Mamadou la Mamadou mooy kii ma yéen a ngi doon gis vidéo yi si TikTok bi kenn amutoon jàmm ak salaam fan yooyu sénégalais mën a nettali yow nit góor-góorlu fondement terrain rek nu mu jafe terrain nit ki fondement def immeuble def fenêtre def meuble def lépp yow sa baay amul sax néegu barak nga jóge fale naan way kër gi bugaan gay dani moo ko moom immeuble bi ma jàmbal jaaj fu mu mujj da ngeen gisagum benn kër gu nu toj ñi ko moom yëpp danoo jaar si yoon pour am ko xool leen ngeen def ji wala seen bàyyi def noonu ñu am loxo doomu aadama soxor mais dëkk bu ñuy tabax loolu dafa baax bu doon ay néegu baraak la sax ngeen ne lii day encombré nañ ko fi dindi mais nit ñëw immeuble ngay soxol di bon warul am immeuble yow Europe bi fii da nga gis ardoise yëpp ay château la. te état bi toogul fii naan yor leen seen caméra won leenu château bi ku ko moom ak kee moom ñaan nañu yàlla ñëpp am ay château senegal gay lu fa ëpp si château ñett château la wala ñaar ngeen jàpp naan château bi diwa ko moom immeuble bi pour nañ ko toj pour na ñëpp dëkk si barak ak néegu ñax yéen a bon doomu néew di doole bi rek doon def loolu boo gis doomu millionnaire wala doomu milliardaire jël téléphone am ñëw si benn immeuble filmé ko nga gis yenn xale jigéen ñi mais dem leen suivre vidéo si TikTok bi xale yi jigéen ñu ñoo si ëppoon loolu nag xëy yàqamti fen gars yi fii mooy ngor fii moom Ousmane Sonko war na si wax kër gi dafa débordé nangu suñu plage waaw fii mooy Mamel nangu suñu plage animu tey fu mujj du fii lañ toog ne nañ arrêté travaux yëpp tey état bi ta ne liggéey leen gis ñu dara loo xamante ni moomu leen ko yow néew du doole bi du yaa ngi fa sa saaket ba léegi soxor baaxul i iñaan baaxul am na doomu dëkk bi yoo xamante ne liggéey nañu dignement ba am lu ñuy am ku deewagul sa wërsëg mën na ñëw mën nga amee lu raw loolu gëm yàlla kese mais nit yoo xam ne dañoo ñëw bokk parti politique boo xam ne yéene wunu kenn am ci Pastef bi laa ko gisee nag sincèrement parler c'est la première fois Senghor ba léegi ay nit tey caméra di filmer naan kër gi kii ko moom kër gi kii ko moom te kan moo doon def loolu ñi woo ne seen bopp ay patriote la

buñ ko jàppee loo si gagné gars yi Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck buñ ko jàppee yow loo si gagné lan nga si gagné lan ba di si bëgg ba di partager ba di commentaire ba ne waaw jub mais Cheikh Yérim Seck lu mu def bu jub jubal day communiquer amul lu feexul fi waxul Macky Sall nga gis Macky Sall di ko téye si ay ñàkk fayda wala leneen Cheikh Yérim Seck lu mu fi wax dafa am fii ba koy bind si ay livre fii la ñu fekk non mais le problème en est que terme yi ngeen jël di ko utiliser sax terme yu nit musta utiliser ci politique ay gatsa gatsa gatsa gatsa soxore quoi soxore iñaanante lu musta am billahi wallahi wa taala seen Ousmane Sonko bi dafa ñëw ci langue politique papa ak yaay jote nañu ndax Ousmane Sonko jëkkër ak jabar jotté ndax Ousmane Sonko enseignant ak élève jotté ndax Ousmane Sonko kalifan bi amon xarit ci TikTok bi jotté ndax Ousmane Sonko jaay soow ba jotté client ndax Ousmane Sonko jaaykatu jeun ba jotté client parce que jaaykatu jeun ba client bi di jënd jeun bu né jaay jaaykatu jeun bi Macky Sall la and luma ci si jaaykatu jeun bu maksal ak Macky Sall xol lool xol lool nga dem marché di jënd jeun borom jën bi de man de Macky Sall laay topp nga ne ko Macky Sall ngay topp man sa jënd du ma ko jënd mais on est en politique on est en démocratie nit ku ne libre nga far fu mu neex pourtant tey sunu mbokku chrétiens yi bokk nu diine ñun ñuy jaay yàpp ñu ngi jënd ñun ñuy jaay jënd ñu ngi jënd ñu ngi dugg seen kër yi di naan may ñu ndox suñu xuloo si yooyu kon lu tax politique bi tey di ñu mélanger si ñàkk fayda tay da ngay jang école nga gis sa maître mala sa enseignant nek catholique ko croix yo nga nek jullit nga tok mou lay jangal bokk len diine pourtant mou nga ne yow tu es chrétien sa croix bi man la ma ne bonjour parce que bokkuñu diine mais da ngay tok mou jangal la ngeen dem ba nga am dom sax tuddee ko ne ki ene kon sama prof and bu rafet lol na mo xam ci Sénégal mais tay politique bi da ngay nan ko andal Sonko koo àndal maki man kep kuy mak sal duma ko nuyu lol dang koy dégg ci panel yi. ku ànd ak Macky sàll du fi xool waxu dof yooyu ku ànd ak Macky sàll na génn sama panel xool waxu dof yooyu te pourtant mën nga jékki-jékki accident te ñuy wër deret ñu xool ñëpp ku am deret ku ànd ak Macky sàll bi moo yor deret bi nga soxla est-ce que di nga naan soxla ma deret ki ànd ak Macky Sall ki lu wax dof politique nit ku ne am nga droit bëgg fu la neex nga far. nga bayyi tamit nit ku ne libre far fu mu far parce que pitch pitch pitch bi dinaaw day taxaw si garabu newa kenn bi jekki jekki naaw dem si garab kàdd gi dafa libre waxuma la ak nit njaay jekki jekki ne man PDS laa bokk bokkuma Pastef da koy bàyyi bokk PDS bu jugee PDS bu ko neexee dem APR mais ku ànd ak Macky Sall nangam taan ku andak ak Sonko may patriote ku andak ak Macky Sall warkat nga da nga war askan wi c'est quoi le projet ku andak ak Macky Sall da nga war askan bi ku andak Sonko waroo askan bi da nga andak askan bi c'est quoi ça ce genre de délire Sonko lu mu defal askan bi il faut ngeen arrêter ngeen calculer wat sen moyens yi politique bi du dar Sonko bi xawñu tayla wala suba yag yag day genn aduna ñu ko dàkkoon ne jàng fop ñoo dem ñu ko gënoon doon ay guerrier fop ñoo dem il faut ngeen arrêter xam ne politique bi nanu ànd ñun ñëpp bëgg sunu Sénégal ñuy ànd si dëgg loo bëgg-bëgg Ousmane Sonko bu defee naka sudul noonu nga ne ko Sonko ne wax dëgg fa yàlla bëgg naa ko parce que dama jàppoon ni que si politique bi dina ñëw relever le défi mais lii mu def moom wax dëgg fa yàlla taxuloon ma fal ko et c'est tout loolay dëgg wala tamit bu dee daa am lu ñu xooj jox leen ngeen naan ñu xool ku xoojoon jox leen naan mu ñu def si ne waa keneen mu deñ donc dal lola la bëggon pour wax sunu Sénégal nañ ko bëgg ñun ñëpp muy PASTEF ak APR PDS nañu ko bëgg ñun ñëpp ko xamne mu ngi développer Sénégal ñun ñëpp ñëw jappalé ko pour un Sénégal meilleur ko xamne nak dafa bëgg yaq Sénégal ñun ñëpp ñu and ñu dal si kaw pour Sénégal gogu bu mu yaq man lola la and loluy dëgg muy ministre wala directeur bu jël xaalisu askan bi xaalisu askan bobu nga xamne lañu waron tabaxé hôpital wala lañu waron def ci ceeb dawlin pour yok mu ñëw jënd ko. tabax ko ay kërëm ak jox ay waa famem kooku dama ànd na fay nañ ko tëj mais ñii tabax pour Sénégal baax genre Cheikh Yérim Seck di informer nit ñi pour sénégalais xam lu xew seen réew ñooñu jaru ñoo tëj donc lii lañu ñu ne woon dinañ ko si wax il est quatre heures trente quatre minutes Sénégal xam naa ne ngi deux heures trente quatre yaakaar naa ne li ñuy wax presque ñu ngi doon wax y avait deux mille et quelques personnes ñu seetaan day am procureur bi mu ngi ñuy day am commandant bi mu ngi ñuy beauté cosmétique merci commandant de la gendarmerie daf ñuy seetaan monsieur le juge bi daf ñuy seetaan conseiller Ousmane Sonko yi dañ ñuy seetaan parce que réseaux sociaux ku nekk si nekk xëy nak duñu bind fi sen tour ne kali ki a lay seetaan ki a lay seetaan ki a lay seetaan mais façon nit bu nekk mo ñuy bàyyi xel donc ngallaawaay dañu bëgg suñu Sénégal ku baax amna dëkk yo xamanteni ni dañoo jaaroon ci guerre ay nit dee. mais ba ñu fasaatee seen jom bokk ndey bokk baay seen dëkk ngi ni tey dañoo ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi avancé ñun nag eggaguñu foofu kon nañ leen bëggante Sénégal bi rëyul dix-huit millions d'habitants ak sunu ressources yi yëpp ñu am ñu bokk ndey bokk baay xam ne Sénégal moo ñu yitteel léegi Sénégal jëm kanam mais bu ñu toogee nag góor yi baax yi ñu leen naan dañ leen di jéem a tëj dañ leen di wéy parce que ànduñu ñook Sonko nii kanaa yàlla si boppam mooy andi misère bu sax sàpp ci biir Sénégal ñëpp yëkku na yàlla yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp salaam di jaajëfal ñi tapoté woon ñi partagé ñi fi yëgoon di commentaire ñi defoon demande bëgg yëg yëpp sant ak ngërëm ñeel leen beneen live incha allah fii lay doon suba ak jàmm ci beneen live jërë ngeen la famille yàlla